ku déglu li ñuy wax ci ci rajo bi ci ah, oto bi ñu àndal li ñuy wax mooy geste barrière yi ñu def ko gën ko respecté nit ñi nañu dégg ndigal li ñu leen di wax nañu set nañu set waaye masque yi nag sax moo gën a tax ñuy wax ndax masque yi moo lay aar mooy aar keneen kon nag ni ñu leen ko joxee masque bu ku ko jël li ñuy wax nekkul nga wàcce ko fii masque koy jël nga ko bala nga koy wala nga ko ba set nga ci ba mu nga door a jël sa eh, sa sa casque wax nañ aussi bu ken wéccé ak ken masque masque yi sa individuel ku ci ne sa masque bop ya koy tak amul ablante kuy jënd masque fenen tamine waxuñ la nga jël eh, ki jaay masque ki essayer di tek di essayer di tek lool yépp dañ koy téré donc masque ku ci nekk yow ya koy défar sa bop muy sa protection individuelle ak kenen ki ngay jënal yeen ñaar ñëpp ngeen eh, yalla sutural leen ngeen jappal suñu dëkkandoo yi ñëpp déjà xam nañ ne lii lu war a am la balaa ministre bi sax di ñëw ndax comme ñoo ko fi doxal balaa muy ñëw dañu waroon préparer terrain ba ñëpp xam ne day ñëw fekk suñu si duñ xaar ba mu ñëw ñuy doo ko def mais dafa ñëw fekk déjà nit ñi ñu ñaax leen wax leen ni ñuy def pour aar seen bopp aar seen seen i li ngeen def nii ñoom kontaan nañ si bu baax a baax wax dëgg yàlla ndax ngeen dikk ko indi ñu ay masque indi ñu ay gants indi ñu lépp loo xam ne lu war a xaaju si affaire bi la ndax feer bi dafa garaaw feer boo xam ne nii nii bitim réew jaaxal na leen. surtout Sénégal bis rek nga xam ñom bari nañ doole lool tam jaxal leen surtout ñun ñun nak ñun ñi ni kon nak ñun itam nañ ci fagaru boole di raxasu boole di set boole di sellal boole tak masque yi ndax loolu moy li nga xam moy ñuy musal si feebar bi te fièvre bi du fièvre bo xam bu ndaw la lo xam ni ni bu dikkee yakal la teudal la ah loolu dal du lo xam ni dal lu nit war sa sagane la il faut que si ñu góorgóorlu li nga mom la Euh, président bi santaane ministère yi santaane ko ñun ñëpp nañ si ànd def noonu ñun na si la ñu fekkoon waaw masque yi wax naa masque yi masque yi jox nañu ay masque masque yi itam bu ñu ko jox nañ ko takk waa jël masque takk sa baat defoo sa gémmiñ defoo ko sa bakkan loolu xamul njariñ masque boo ko xamee doo ko takk si sa baat du xut wékkoo masque da nga koy jël def ko si sa bakkan def ko si sa gémmiñ loolu mooy li nga xam ne nii mooy masque yi moom la jariñ mooy faj feewar bi boo ko xamee kenn du la wàllu yow itam doo wàllu kenn kon nag loolu lu xam njëriñ la. sant yàlla sant yàlla delo ko ci lim ko don santoon mais geureum sant madame le ministre Zahra ndax ku am njabot mbir taxaw njabot gi jitu yow mi waa jur wi sa xel day dal magu ci ka bi sen xel dal nañ tay nak suñu xel dafa jëm ci suñu ndaw yi ñaan len ñom ñu bàyyi ñu xel waye ñu bàyyi xel ci Sicap bi bàyyi xel réew mi

ci xale yi lay gën a tu kon ci turu imaamu Sicap ci imam Mohamed Mansour mi président collectif Tu ci turu président association wu mosquée yi ci Sicap bi yëpp ñu ngi gërëm madame Zahra Iyane di madame le ministre. nous sommes euh, derrière madame le ministre. pour accomplir le travail qu'elle est en train de mener, c'est-à-dire euh, la lutte contre euh, le Covid-19. Et ensemble, nous nous sommes donnés corps et âme, nous nous sommes donnés la main pour pouvoir lutter euh, ce virus vraiment qui gangrène la population. Et nous sommes très fiers de travailler avec Madame le ministre Zahra Yantiam. Euh, vraiment, elle habite les CICAP. Et elle s'est levée pour dire que voilà, je vais travailler avec la population, avec les mouvements, avec les AEC, pour pouvoir lutter contre le Covid-19. Et je pense que euh, tout le monde le sait maintenant que le virus est en train de gangréner. Et on demande surtout aux gens de pouvoir respecter le dispositif mis par le ministère de la Santé. bi di feebar bi euh, tambalé léegi biir Sénégal dans mat na ñaari weer ci ñaari weer yoy liñ ci dans moy euh, danaka maladie bi yokk na par six ndax tay tollu nañ ci junni cas ak lu top. seetlu nañ tamit ne bi ñu jëkkee am ki nga xam ne dafa wàññeeku ci feebar bi ak jëmmi jamono tey lim ju yokk tamit daanaka multiplier na lool ndax toll nañ ci juróom-ñeenti ñu dem jë fukk ñu dem. ñu seetlu également ne feebar bi ñi muy gën a dal mooy ndaw yi nga xam ne am nañu ñaar fukki at ak juróom jër ñeent fukki at. loolu aussi dafa ñuy won ne rek xeexu Covid 19 du xeexu waa kër docteur rek. du xeexu médical rek ndax comme fii ak feebar baa ngi law taxawaay bi dafa gën a war a yokk ci ñu seet nu ñuy arrêté chaîne de transmission communautaire kon xeex bi dafa war a léegi wàcc ba ci gox-goxaat yi wàcc ci koñ yi wàcc ci quartier yi wàcc ci commune yi wàcc ci département ci arrondissement yi si département yi ndax kenn ku ne bu defee taxawaay bi mu war a taxaw ci koñam feebar bi wóor na ma ne dina taxaw ndax li ñuy seetlu mooy feebar bi du wàllu lu jëm ci yaram rek lay am conséquence ci wàllu koom am na ci conséquence si wàllu social am na ci conséquence ndax gis nañ suñu mbokk yi nga xam ne feebar bi da leen dal situation problème yi ñuy am sax pour nit ñi ñu dëkkal pour fi ñuy dem ak yooyu te feebar bi daf ci bokk dañu war a taxaw solidairement ñu ànd mën a defar mën a xeex xeex bi